fecc nag dafa nekkoon loo xamante ne dama ko bëgg dafa yàgg depuis bi may nekk xale dama daan feccantu affaire yooyu noonu ba am benn jour ñu dem euh, complexe bi nekk buntu Pikine fa lañ demoon man ak sama benn xarit bu ñuy wax nday xadi sama ami d'enfance la kooku ñun ñaar ñoo àndoon foofu bi nu demee si complexe bi gis leen ñuy fecc bale boobu maay am presque xanaa ay ay treize quatorze ans yooyu rek maa ngi gën a nekk xale ñu and dem fekk leen ñuy fecc balé foofu ci buntu pikine complexe bi nek foofu lañ dem fekk leen ñuy fecc balé légui mu ne pourquoi pas ñun ñu def li comme que mën ak dañ ko bëgg mu ne ko ok amu ben problème si lañ commencé nak di dem foofu nonu di def répétition balé parce que man balé la ñëk fecc que sabar voilà bobu naka la démé won da nga doon jang fan nga dëkkoon sa parents yi lan leen ci waxoon waaw may ngi doon jàng aussi sama parents accepté wuñ ko won d'accord wuñ ci won parce que xam nga rek Euh, parent yi moom bu ñu déggee seen doom di fecc rek wala seen doom a ngi dundu aar rek dañuy bañ voilà maa ngi doon jàng sama yaay bugg ko woon sama papa moom artiste la moom amuloon woon problème boobu noonu mais sama yaay moo xawoon bañ tuuti tuuti. Euh, man nag moom xam nga rek sem de laayam <laughs> fi fi ñëpp di yam laayam. ban ban ban xale ban genre aw ma woon problème dama kuul comme ni ma kuulee nii bi ma fa nekkee bi may jàng aw woon benn problème juste ko moom ay affaire bi xumb xumb xumb xumb moom dama ci daan nekk moom carrément mais aw woon benn problème. kañ nga commencé nekk ci waaw danseuse professionnelle moom maa ngi ko nekk ci sama maïs koo xam ne ku baax la ku ñàkk ki ñaan ku ma bëgg mun naa ne moom moo ma yar moom moo ma jàngal fecc ndax moom moo tax ma xam. nan la ñuy yëkkatee tànk moo ma jàngal fecc sabar daal muy euh, Aziz Dabala alliance Kels kooku moo ma jàngal fecc moo ma tett ci aar moo ma won yoon ba tey jii lépp lu ma am ci fecc man dama ko koy sante dama ko koy sante à part loolu nag cadre bale bi moom ñoom paa yoro ñoo ma yoroon falaa doon feccee mu nekk oxygène la nekkoon tëggkatu jémbe la moom moo ma yaroon Mm-hmm. te spectacle ce que moyen yi ñu fa woon waa daan na métti moom daan na métti mais xam nga jaar-jaar bu nekk moom ah nit mënoo ne fii laa jaar ba pare méttiwul wala wala subiroo si benn conséquence boo xamante ne nii mooy loolu. waa Dikon bi bu ma demee ba nekk ci grâce grâce à Aziz Dabala comme ni ma la ko waxee sànq parce que moom moo ma woon ne ma am na benn casting bu ñu war a def Pikini Production. ñu dem parce que moom lépp lu muy def daf may woo lépp lu muy def dama ci dugal mu ñu dem chance ma ko ok amul problème léegi si laa ñëwee fii def casting bi ma casting bi mu jël ma voilà. Euh, début bi la demee parce que nga joué naka la demee tamit est-ce que des fois du am yenn yenn rapport ñagas yi ak ñoo danse. naka la demee bi ngay soog commencé. waaw loolu moom dëgg la moom milieu jigéen moo demee noonu mais bi may doo commencé xawoon naa ragal tuuti mais comme nga sama papa artiste la sama yaay aussi artiste la sama papa euh, artiste peintre la sama yaay danoon def comédie aussi dafa nekkoon ci théâtre xëy na don boobu moo nekk ci man ba ma ci am benn difficulté ci li may def. suma ñëwé suñ ma wanee li ma wara def dina ko def mucc ba ci am tamit kenn problème parce que man mom ku nekk la mëna dëkkal amu problème bo mais jigéen ñi des fois jigéen ñi fa ñu dajee da daan am xam nga ku nekk da indi sa personnalité mhm. ba ngeen comprendre que té ko mëna nekk ay xarit loolu yaakaar na ni ñak fa woon non man nak vraiment bu deug rek nexé man gisuma lolu parce que gisuma fa kenn ko xamantene ne na ma ben kanam bu ñagas képp ku fa mësa ñew dal waaw jamm la sék ak yow mosoo won wan lenn lenn vraiment ñu nekk ñu baax ñu neex a liggéeyal ñu ñàkk problème waa dikkoon yóbbu na ma yóbbu na ma fu sori dëgg la nabu lay yeggoon na sax fu sori mais dikkoon tam gën naa yokk loolu noonu parce que tax na ñi ñi xamul woon nabu lay tamit xam vraiment artiste ak artiste nga di feccal waaw man feccal na Salam Diallo à part Ndeye Gueye mi ma nekkaloon parce que Ndeye Gueye laa nekkoon moo ma yoroon feccal naa si waaw ci Ndeye Gueye laa nekkoon fa laa nekk ba léegi sax fa laa nekk ba léegi vraiment les gazelles waaw parce que Aziz Dabala moo ma fa yóbbu parce que Aziz laa daan àndal comme ni ma la wax rek Aziz moo ma jàngal fecc moo ma tette ci aar ba un jour Ndeye Gueye gis ma bi ma bi ma gisee daan ne Aziz man kat sa danseuse bi dafa ma neex xale bi dama bëgg nga bàyyi ko mu ñëw sama groupe Aziz tam ñàkk ki dan ne ko wa ok amul ben problème après cela nekk ci ndey gay nak di fecc ak moom. Ndeye Gueye léegi ndax yéen ngi déggante parce que xamna ni ko dafa est ce que yaa ngi koy def di ko seet. waaw ngi koy seeti ñu ngi déggante mi ngi ci jaam mi ngi sant yalla bu baaxa baaxa baax mu nekk mom tamit ku ñak ki ñaan dama koy sant vraiment diko gëreum parce que momit defna sama art lu reuy yóbbu na ma nak fu sori tamit aussi ci sama art ku baax la ma ngi koy ñaanal guddu fan ak wër diko remercier ci lu béré béré béré béré bëri vraiment. ban mhm. <laughs> waa loolu moom am na moom parce que ñun ñëpp ñiy fecc loolu lañ ñuy wax dañoo ñàkk kilifa alors que ni c'est pas vrai gis nga fecckat yi ñoo ëpp classe sur ñoo gën a am kilifa parce que man mii nii fecckat laa danseuse la damay fecc yàgg naa fecc mais sama yaay laa nekkal sama famille laa nekkal damay dem liggéey fecc liggéey la ñun ñun ñun fecc ñu loo ñu loo xamante ne ni tey jii lu bon la parce que am na lu ñu fiy gis lu bëri loo xamante ne ni danga koy def te fecc ko gën fecc ko gën ku sañoon sa doom am na ñoo xam ne seen doom tey jii buñ sañoon dañuy dugg ci aar bi fecc parce que da dem ñaq fecc mu métti torop ñu fay la sa xaalis des fois duñ la fay des fois doo ci am dara mais ngëm-ngëm moo la ci dugal comprendre nga dañuy dem fecc des fois dañuy am xaalis bu ñu yoree suñu xaalis ñu dem yóbbul suñu yaay man heure bu ma demee jouer ji bu ma wàcc bu ma ñibbisee damay dem jox sama yaay sama xaalis jox ko parce que liggéey la comme liggéey yëpp loo xamante ne da koy def ba pare tàllal sa loxo ñu fay la loolu liggéey la dëgg la nag moom métti na trop aar moom dafa métti lu nekk ngay gis lu nekk ngay jànkonteel mais ngëm-ngëm rek nit boo amee fulla sa bopp am fayda sa bopp xam fi nga teg sa tànk rek du la yab aar bi ku ci nekk ñu yeb la wala ku ci nekk ñu naw nawloo wuñ la boobu yow yaa ko indi parce que yow yaa wane ne dangaa ñàkk fu la amoo valeur mais fecckat yi dañoo am valeur gëm seen bopp xam la ñuy liggéey barki Serigne Touba Mbacke. mais waaw li mu dund ci fecc bi mu nekk loo xamante ne métti na ma. Euh, dafa am benn jour ma dem programme mi ngi demee programme ba non avant ñuy dem programme lañu romb ay nit bi ñu rombee ay nit ñu wax ñu wax bu ñaaw faale wuñ nee naa ah, ñu génn dem dem fecc bi ñu feccee ba pare deen génn dañoo génn rek ñu songu ñu xeex góor ci fu dëkk ñu songu ñu xeex di xeex ak ñun mais ñu ñàkkante kook ñoom man leen na nag fecckat yi du fecc rek lañ mën ak ñoo mën a xeex soxor parce que dafa àdduna moo demee noonu nit ku ñuul moo bon nit ku ñuul mo soxar xoola nga tok sa buntu keur xeyo gonto nit rombu la solo ba jek dem di liggey liggeyam nga baatale ko ko lo ne ni tey ji wax ju ñaaw la faala wu la lijeenti wu la rombu la dem nga song mu def limi def ba genn nga song ko xex soxor mo am li nga li nga bëggoon ci fecc bu démb doon tay bu doon ah waaw damay nek fecc kat kay wa parce que sama bëgg-bëgg la malgré que ne sama jang yakuna mais bu dem bon bu dem don tay dina continuer sama jang mais en même temps lima bëgg man dama koy def parce que mom la opté mom la bëgg mo nek sama xol li nga bëggon ci fecc bi est ce que tay fecc bi mëna na la abulay ban relation nga am ak ses parents surtout sa sa mu ci jigen wa fecc bi mom ma ngi ci sante yalla bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax sama wajur bu jigen amu ci ben problème amu ñu ci ben problème man ak mom parce que daf ma ko doon tere mais bi mu demee ba xam ne doomam kat lii la bëgg te boole na ci fulla ak fayda nabu lay mosul dëkk bàyyi waajuram mosul lekk bàyyi yaayam mosul naan bàyyi yaayam mosul dem fenn bàyyi yaayam lépp lu may def mën ak sama yaay ñoo koy déggoo lu ma am sama yaay laa koy bokkal dem na ba ñëpp di ko wax kon man ak moom amuñu ci benn problème parce que sama xarit la sama complice la man ak moom daal dafa mel ni comme ay mag ak raq man moom noonu lañ mel amuñu benn problème ci fecc wa naan ndabu lay ay forme macha allah mais dafa parce que nit ñi ñoo comprendre lu que ni série dañ nga jox sa scénario nga lire te foog naan lañ la bindal nga war liggéey parce que da nga signé contrat di liggéey kon ka nga signé contrat bu koy liggéeyal mom la mu bëgg nga wara def c' pas parce que nabu lay day solu sexe nabu lay dafa bon c' pas parce que nabu lay day solu sexe nabu lay gëmul no non non non non. Nabou Leye am na fulla si boppam gëm na boppam xam na fu muy teg tànkam mais nag liggéey la nit ki boo koy liggéeyal danga koy defar loo xamante ne moom la bëgg liggéey la dañ loolu loolu la laaj sama sama sama tournage série boo xamante ne bu fekkee benn partie bi lu sexy laa war a sol parce que loolu la laaj moo tax ma sol ko bu laajoon tam ma sol yére olof dama sol yére olof. même en dehors de tout le temps dañ naan mhm. dëgg la xam nga du question que da ngay dajeeg nit ki mu sol lu sexy gis nga am na nu la yàlla di defaree am na nooy mel man ni ma mel def ma ko sama bopp yàlla ma ma ko def forme bi ma am def ma ko sama bopp yàlla ma ma ko def su ma solee jiin day génne sama forme dañ naan dama sexy Sénégalais xamul xàmmewuñ nit koo xamante ne formam moo jekk ba lu mu sol. loolu lay àndal formam lay àndal léegi nag boo solee jean tey ji damay sol jean suma ma jin, jean jean bu seeree suma ma génnee ñu ne li ma sol dafa sexy ndax mun naa sol tay baas suma to solee tay baas ak jupe sama forme day génn léegi ñoom duñu wax ne dama dama sexy léegi mu man man to damay sol jin, damay sol lu sexy dëgg la mais ci série bi damay sol lu sexy parce que dañ ma ko laaj suma ma génnee ci biti suma solee tamit li may sol man xam naa ko parce que am na loo xamante ko sol bëccëg naan damay dox ci mbedd yaa ngi dégg série bi moom moo laaj pour ma def loolu ma def ko sama form nii la mel man sama forme lu ne laa ci dégg dégg naa ay damay monter en chèque dégg naa ay lu ne man nii laa mës mel nii laa mel nii laa mel yàlla daal moo bindee nii mënuma si leen. Euh, Nabou Leye am na amoon na jëkkër. mo naa jëkkër. est ce que est ce que fecc bi nga nekk des fois du du du la xaw a yàqal su nit ñëwee bëgg la def soxna wala lu mel noonu. mooy comme ni ma sànq nit ñi dañoo jël yi. Mhm. am fenn fu ñu leen classé des fois du am mosoo dund mu am lu la yàqal. non non nag pourtant fecckat yi ak ñoo mën a sëy <laughs> fecckat yi sëy rek la ñuy def dañoo mën a sëy man mosuma am difficulté boobu que ni nit ñëw gis ma bëgg ma bëgg maa takk xamna fecc kat la mu dem bàyyi ma fi musul am amon na No, non même pas telu ma sey bima sey ak legui yagul amna fi jëkkër koku ñew na gis na ma may fecc ah non si dikon bi non avant dikon du moins avant dikon bi la lay ñew gis ma ma nek artiste aussi mom tam artiste la won parce que da doon fecc mu gis ma ñew fekk ma sama biir keur fekk ma ma sama wetu yaay mu xol sama sama situation ni mu demé xamna man mi kat waaw jigen la fekk na moom liggeyal sama yaay di jappale sama yaay tek sama yaay fi ma wara tek te xama xale bu goor mom day bëgg jigen bu bëgg yaay ndax dina xamne bu ko takke yobbu ko kërëm dina respecté yaayam mu gis lool tamit bëgg ma ci takuma mais malheureusement yalla def na ju ñoo yag man ak mom ñu divorcé. Euh, fecc bi bëgg nga ci bëgg nga ci continuer ba tay am nga projet yeneen projet en dehors de fecc bi lay léegi léegi mu bàyyi wala da ngay continuer ba ci kanam. non am naa yeneen projet moom en dehors fecc bi mais pour les l'instant moom maa ngi ci fecc bi waaw mais ñaanuma yàlla nag nekk ci moom di dem rek am naa yeneen yoo xamante ne nii man war naa ko mën a def te pare naa pour def ko. ñu <laughs> ñu bàyyi yooyu Aziz Dabala kooku sama papa la kooku moo ma yar kooku moo ma jàngal aar man ak Ndeye Khady sama jumelle boobu noonu. ma koy saluer de passage Aziz Dabala du du du du sama copain vraiment sama sama sama mag la sama xarit la sama papa sama lépp la mais y rien entre nous.